Cheikh Yann Kang yi secrétaire général section communale Kër Massar partie de l'unité et du rassemblement waaw tey dañu organiser woon benn journée pour euh, marquer octobre rose xam nañu mois d'octobre, octobre mooy weer bi nga xam euh, célébrer xeex bi ñuy xeex cancer moo xam ci wàllu ween la wala ci wàllu butitu njurukaay donc tey nag suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci section communale bu Kër Massar Nord amoon initiative bi organiser journée bi waaye yamuñu ci rek parce que dañu gis ni mbirum santé dafa yitteel ñëpp donc moo taxoon ñu boolewaale ci testu diabète defaat hypertension yooyu ñu jëfale ko defaale ci ay test pour personne troisième âge bi ak ñi nga xam ni seen wér yaram yitteel na leen ñu offrir leen occasion bi ñoom ñu ñëw pour xool seen yaram donc loolu euh, dañ koy dugal rek ci euh, dynamique gu parti de l'unité et du rassemblement euh, dimension bi mu jox walu action sociale donc fofu lañ koy dugal organiser won nañ ko ci wéru port bi am lu ñu defoon tey nag ñu feddaliwaat ko ci wàllu wàllu santé donc ñu xam ni parti PUR dafa am dimension bu am solo bu mu jox la politique sociale boo xam ne daf ko jëme ci askan waaw li olof di wax ñam naa ko neex na bàyyi naa ko mu amul parce que gëm naa ni suñu jigéen ñi sax ñoom duñu seetaan parce que ñoom amaan na yeneen i xalaat yoo xam ne ci yeneen activité ñuy xalaat def ko euh, mu dëw ci domaine yu bari xëy na balaa yàgg dinañ ci ñëwaat ñu defaat yeneen activité yu gën a am solo yoo xam ni euh, dinañ ko mën a gën a pësal

dina amaat yeneen activités yu ñu organiser yoo xam ni moo xam yoo xam ne spécifiquement jigéen ñi lay laal wala yeneen yoo xam ne de manière générale population bi yëpp lay concerner